peut-être jàpp nga ne ñii waruñ génn réew mi ban yoon lañ war a mun a jaar ba rëcc la tamit. non ah nga dem ah même buñ ko yëgee wala nangam nga ne. ñu ngi ko doon ah gis nañ fi Juan Branco aussi. waaw ah, mais waaw bi mu rëccee dugg rëccul génn. Ah, non dama ne biñ ci defee li ci war. bi ma ne la Ngagne Demba rek Ngagne Demba Touré moom rëcc na. rëccul woon wala wala. moo <laughs> d'accord léegi ah. da ngay ñëw ci li nga xamante ne ni moom la euh, Bougane wax euh, plant yi nga xam ne euh, fas yéene na ko déposé mu jëm ci scandale Mimi Touré ndax moom la moom moom la boole d'accord léegi dafay boole li nga xamante ne ni d'accord léegi saa nag koo <laughs> yaakaar nag koo yaakaar jàpp ne Mimi lu ko nit wax dana ba métti effectivement mais bon waxi Bougane day dangay daal di xam ne moom li muy wax naan jarul du ma sa doom moom ay waxama jarul du ma sa doom xam nga dafa am ñoo xam ne boo leen xasee ba nangul yenn yi rek te loolu mooy li gën a essentiel yat wi nit gën a homme politique gën a mën a dóore ay moromam mooy yetu justice instrumentaliser justice di moment nga xam nga ne niñ tegee si justice ñañ fa teg mënuñ leen a instrumentaliser mënuñ leen a wàññiloo seen loxo mënuñ leen def loolu parce que ñooñu dañu am vécu comme li ko doon wax homme politique maanaam nit kii Euh, par discours la mais parcours la nañuy xool parcours yi maanaam ñooñu boo ko xasee wax rek mooy yow valider nga bon foi wu ñëpp. léegi nag bu ñëwee ci Mimi Touré. Mm-hmm. Mimi comptable la ci bilan Macky Sall mais est-ce que coupable la. ok waay Mimi Touré naa mas naa wan kenn ne ku ñuy def loolu lu ko neex la lu mu xañ sax mën nga koo wax ne posture ma ko ko. xañ nga est-ce coupable kan mooy wax il est coupable il est dama dama koo wax man maa wax. nag léegi tout le monde. déedéet déedéet non non non xam nga. mais tout le monde doit être entendu xam nga nag xam nga nag d'accord quoi. ah déet. kon kay kon bu ko kon réduction des comptes. c'est une réduction ciblée ci ay rapport non non c'est pas ça mais ku ñu cité wul ci rapport. c'est pas ça évidemment rapport Cour des comptes. waaw mais ku ñu cité wul ci rapport. non mais ñi nga xamante ne ni peut-être dénkoon nañu. mais réduction des comptes dunu large aussi. peut-être ki mi ngi koy wax tout à l'heure. non non non non li ngay wax ne du loolu. réduction des comptes du. Mm-hmm. ni ñuy tuddee ci rapport la ñuy def moo tax ñu naan mm-hmm. réduction de compte. réduction de compte mooy c' est la gestion. Mm-hmm. d' une année wala benn période. donc réduction de compte du. Euh, diw euh, euh, non kii sëñ bi bu ñu demee justice. mooy def loolu nag. y les organes de contrôle de l' État. léegi kon rapport bu génnul. rapport yi ce sont les organes de contrôle de l' État qui font des rapports. justice mënul xëy rek parce que ñaari pouvoir yu wuute la pouvoir da am pouvoir exécutif. am pouvoir judiciaire fële. léegi léegi pouvoir judiciaire mënul tëb tëb rek. léegi bàyyi ma léegi bàyyi ma expliqué la. juge mën nañoo war a dugg ci ministère la. supposons day déglu ministre. c'est pas sëñ bi waxuma lu ngay wax ne waxuma ko. waaw waaw man gënoo ma xam li may wax. ah non wax nga ma la gën a xam ne waaw saisi et saisi. waaw par benn moyen bu mënti doon. waaw loolu xam naa ko. voilà donc dama ne. Mhm. supposons boo demoon primature. oui. Mhm. mosuma génne benn rapport. ñu génne benn rapport. Mhm. nga lire ko. te xam naa doo génne. un seul rapport concernant la primature. mën nga génne wala mën nga ko génne. c'est rapport non man xamama lu nga bëgg a wax d'abord. Oh, man benn rapport bu concerné gestion primature. musuma fouillé loolu su ma xëy na su ma si demee dinaa si. même boo xoolee doo ko gis. Ah, amul léegi loolu. Mhm. ñaata milliards lañ leen jox. président de la République bu di dinaa def audit interne de la président des services de la président de la République. Mhm. te musul am bu ko defee nga gis fi ay toj-toj. Mhm. léegi comment tu peux def réduction des comptes concernant certains ministères nga nga isoler d' autres ministères après nga ne léegi dafa da nga bëgg a yemale loolu c' est une réduction des comptes ciblée elle n' pas généralisée alors que dafa war a nekk une réduction généralisée et générale concernant tout le monde tout le monde sans exception créer exception rek mooy yaa ngi jël ñi bay jële mm-hmm. mais soo bëggee mu leer da ngay da commandité ay ay ay ay kii ay audit. nga dem primature IGE dama leen ngeen xoolal ma service bi service bi. ngeen mm-hmm. topp leen. Mm-hmm. mais boo kiiyee nga ne jaru ko. jaru ko ko. au delà yi nga xamante ne nii jot na génn yeneen mën na ñëw bu fekkee ne euh, amal nañ audit ci am na yeneen yoo xamante ni war na génn. waaw président dafa ko war a <laughs> xam nga non non non dagg nga ma dagg bu soof sax kay. dëgg yàlla yow eh, elle est coupable de quoi. nangu nga jël dagg la mais nangu nga. yaa ne elle est elle est comptable mais est-ce qu'elle est coupable. waaw du may la ñun loolu lañ xamul nag. moo tax may la léegi moom ba ça va. léegi nag man loolu laa la wax ne ba fi ñu toll nii. amul nekkul coupable. comptable la leer na. mais comme ñeneen ñi. waaw non comme ne mais mais foofu laay waxee. est ce que ba ma bàyyi woon ma daaneel di nga xam sens bi may waxee. xam nga affaire yi du noonu quoi xam nga. foofu laay waxee ma ne. comptable la ci bilan Macky mais nañu xool jaar-jaaram quand même fi nga xam ne fa la jaar. est-ce que niru na nit ñi ne ku ki doon def loola. xam nga commençant par Bougane Mimi Touré mi ngi woon F24 16 Bougane su nekk mi nga fa. temps moom mosut a taxaw ñemee taxaw ne eh, Mimi Touré ndong sa xam man toog naa foofu nit wax ne Wade bi mu ne bi mu waxee ne. bu fi Macky su ngeen kiyee du ngeen fay salaire damaa taxaw ne ko loolu du dëgg dama taxaw ne lii mu wax nii du dëgg na ko waxee ni mu demee ma bu ko dagg ak nag met Moussa Diop mhm. buñ ko taxee waxal ko Wade parce que loolu dafa am wax bu juboon la taxoon Wade wax ko mooy émission bu ñuy wax face à Yérim waroon a am confrontation entre Wade ak Macky Macky ruux Cheikh Yérim di ko wax Africa 7 la daan amee. Mm. Cheikh Yérim di ko wax comme Macky liñ ne trouvé nañ ay niis yu ñuy def dinañ wàññi li dinañ wàññi li mu ne loolu bu ñu ko defee duñ fay salaire. buñ nangamee loolu nit ñi di continuer parce que comme mi ngi alimenté wu ñu koy def dëgg ba maître Moussa Diop taxawaat F24 wax ko pourtant est-ce que Bougane mas naa def loolu. masu ko def ma ngi fa doon toog xam nga luy wax ji mooy xaste pour xaste amul sens Mimi dañuy wax ne lan moo tax nekkul président assemblée lañ war a wax. déet est bu boobaa moom kon fay ñu ko borom bu fekkee ne Mimi barki démb moom moo fi njëkk a taxaw wax ci ki nga xamante ne nii moo di Amadou Ba loolu loolu wax ci Amadou ma li mu wax laay wax ne li mu wax laay wax ne non moom xam nga xam nga raccun jëlal débat jëlal débat bi boo ma dagaatee boo ma parce que li ngay lu tax nekkul président assemblée nationale c'est assez le tuun mon cher xam nga ba tuun bu ma civilisé bàyyi ma civilisé quand même quoi. non Bougane lu moom. waaye non non mais Bougane xalaatam la wax ci Mimi doo bàyyi ma wax sama xalaat. li nga wax ay. mais boo. wax nag li ngeen doon nekk président assemblée nationale loolu privé la. loolu ñaari parti moom moo décidé du ko doon après loolu intérêt sénégalais wu loolu waa APR ñoo ko décidé. Bougane dafa wax ne le fait que Mimi ak ñeneen ak ñeneen di wax parce que dañ koo deful plan président assemblée hmm. loolu wax nañ ko wala waxuñ ko. Mimi Touré li tax. Mhm. muy génn di wax bu ko mag Sall faloon président ensemble. ba tey du wax du wax. Mhm. loolu posé wu na wala posé wut. effectivement jël réponse na li ñu war a wax mooy lan moo tax nekkul président ensemble. nga dem bu moo ko wax. te pourtant yow dañ laa yoon ci Mimi. loolu seen question yow yow yow maa ngi koy wax fii. parce que ah, non parce que ah. depuis démb. ak barke di sinon si. Ah, ah, non dañ laa yoon ci mi parce que yow. non non non non <laughs> non non sa question fi nga koy dugalee. xam la li may tontu mooy li ne. li ñu ne li ñu ne Mimi Touré li ñu ne Mimi Touré. kan ah ah yow. ah may ma tuuti rek non non non bañ yow maa ngi wax nga ferme. léegi kat mooy tamit dañ ko yónni. waaw waaw damaa defe ne. damay dem ma ma daa ne kii dañ koo yónni ci dañ koo yónni ci mimi. waaw mais non non mais mimi wax ci ñi nga xamante ne ni peut-être ñoom la bokkaloon. nekk ci non non yow bu fekkee ne mimi dafa génn non Fatou ba nga xam gémmiñu sàmm xam nga yéen ni ngeen di. ñun di waxee. wala baax na ma a tontu ci loolu. fi tuuti waxee moo tax man ma wax la loolu tax cuun nekkul voilà xam nga cuun posé woo koon question man nga posé question may wax ci lii moom mu dugal question mu waxaat léegi baal ma wax fi cuun di waxee nga xam ne foofu maa ngi moom fa d'accord comme mhm. ma doo ko ñëwaat ci li man kii waaw yéen it mbaadu xam nga fi cuun di waxee laay wax réduction des comptes dafa war a nekk pour ñëpp mais réduction des comptes suñ koy wax tamit di di déranger corps de contrôle yi fi ñu yaakaare ne fii daa am ak jubadi fa lañ koy yóbbu du rek da nga leen di rek. maanaam bu fekkoon ne ñi mas a jaar ci gouvernement Macky Sall yëpp 4000 personnes la nga jël 4000 personnes yëpp di leen teg boobu moyen fan nga koy amee. loolu loolu loolu loolu meegul 5 sax maanaam loolu xel mën a attan man kii ma comme ni nga ko waxee sànq te kii euh, sëñ bi doon ko weddi muy comme par exemple wala ñàkk cee ànd ak yow muy nit bi nga gis même sax mosut a yor dara nga. xam ne kii xaalis bi mu yoree jéggi na dayoo ma ma tudd tour comme exemple kii exemple bu la neexee nga wax comme genre Doro Gueye wala nga ne Aziz Ndiaye nii muy euh, pasar pasar nii ñuy gisee xaalis di tourner fu nekk muy may ku nekk wala nangam nangam nga soupçonné ko waxuma ne daa def exemple laa koy wax. Mm-hmm, mm-hmm. nga soupçonné ko woo ko pourtant CREI yi mi ngi fi ba léegi. Mm-hmm. te loolu lay jariñ CREI yi Macky Sall dafa teg euh, politique judiciaire et financier pour far ko mais faru ko mi ngi fi ba léegi mën naa nekk. nga supposé ne traque de bien supposés mal acquis du noonu la tudd CREI. enrichissement illicite enrichissement illicite. boo koy topp mooy koy topp waaw du noonu nga noonu la topp da ngaa supposé da ngaa njort ne kii xaalis bi muy yore jege na ku jege nguur ñu jékki-jékki am am bi jéggi dayoo te loolu boo ko lijjantiwul tas nga réew mi ki lay wax mission secret kooku noo ko mën a jàppee. koo xam ne mënoo gis lenn lu ko état kii wala nangam mu jékki-jékki loolu mën na nekk. parce que kooku dafa am lu mu yor dem ba li mu yor ëpp doole ngay lijjanti fan la ko jëlee nga ñëw woo ko mu laaj parce que loolu am na léegi Mimi Touré yow boo xooloon jékki-jékki gis mu yore xaalis bu jeex bu bari wala nga gis am ñu ci enrichir sañ nga ne kii nañu def enquête ci moom te buñ koy def waruñu bàyyi kenn képp ku ñu yaakaar ne am nga lu ci sa loxo laal mais képp ku mas a gérer jaar ci état rek boo ko doon def tey doo doo doo fi jóge mais ñi nga am njort ci ñoom que am na lu ñu laal ñoo gën a flagrant ñooñu ngay teg boo leen réglé pare demaat ci la parce que farata tamit day am mm-hmm. kon Mimi Touré moom ñëpp a yem elle comptable parce que am na lu mu gérer gérer na euh, primature gérer na justice gérer na leneen leneen bu ko waree topp dañ ko war a topp laa du waxal naa la li li li kee wax du wax naa li ci mu wax maa moom a yem wala d'accord léegi ñëwal ci. Ah, euh, ñëw nag ci li ma doon wax sànq. vraiment. non non déedéet xam nga yéen nit day jël di wax tàmbali ci dara. ngeen jàpp ne dafay moytu benn affaire. wala nangam ah, mais da nga koy leeral rek nag yow tamit saa. waa mais dinaa ko leeral. léegi léegi leer na actuellement léegi ñëwal ci nekkoon. léegi fan laa ñëwati woon beneen beneen point bi lu ma ci waxati woon. léegi bàyyi loolu ñëwal ci hmm? li nga xam ne moo di scandale. waaw bugaan laa wax mais maanaam bugaan ak keneen ak keneen ak keneen dañ ne Mimi Touré su fekkoon ne joxoon nañ ko ensemble ñaar du leen dégg ma ne leen déedéet li ngeen war a lijjanti mooy balaa loolu tamit mu honnêteté day laaj lu tax joxuñ ko ensemble te mbooleem ku masaan a def ni mu def ñu jox la ensemble loolu du question question bu réeree la voilà. ah voilà li tax joxuñ ko ko mooy bëggul woon troisième candidature parce que daf koo bañ loolu mooy affaire bi troisième candidature bu Macky Mimi Touré da koo bañ ba Mimi ba Macky xam ne da koo bañ te mosu ko nëbb ñiñ fi voir ñëpp bi mujj na kii u Pape ale am na benn compilation bu mosoon a def Maître Oumar Youm mi ne woon duñ ko def wala Ismaïla Madior Fall mi ne woon nangam nangam biñ demaatee ba ne na ko def wala dem ba ànd ci. Mm. ñu di leen ko tegal mais Mimi Touré mosoo gis compilation boobu mu bokk ci. lan moo tax parce que li mu bañ la te nag kaay wax la de. ñu baree ngi yaakaar ak maa ngi gis sa sama benn xarit naan ma yow ne xanaa ci parti Mimi Touré ko man bokkuma parti Mimi Touré Pastef laa bokk. noonu la rek comme ni nga jàppale ne yéen a non non déedéet xam nga nit ñi <laughs> man insiste dama ko bañ. Mhm. ci forme yëpp maanaam bi ñu bi ñu bi Ousmane nag euh, président nekkee ci kaso bi bu fekk loon mu Touré ci opposition bi. Mhm. néew mu Macky Sall du jóge fi mu jógee de. waaye du du du fi jóge de wala du du seq jéego de waaye Guy Marius Sagna. Mm-hmm. Mimi mm-hmm. surtout Mimi Touré daf ci participer liggéey bu réer yi parce que waxam da doon jéggi frontière. Mm-hmm. bi muy jour bu maa ngi fàttaliku certain dama xamatul woon samedi la woon xam ma bu fi waa euh, Al Jazeera ñëwandoo euh, BBC ak beneen bi CNN bi ñuy dugg fa lañ ma fekk kiisee bi ñu yegsee mu def déclaration boobu bu dal boobu. ci la congrès woman dem wax ak euh, nu mu tuddati Joe Biden te d'après information yi ma am congrès woman yi surtout bi ñu jàppee Mimi Touré ak Anta Babacar dañ doon débarquer Sénégal mm-hmm. lii nii kon kooku ay waxam wala nangam ak nangam bu Macky Sall amee lu ko naqari avant parce que liggéey bi yëpp Sonko ko liggéey mais moment bi nga xamee ne ci affaire troisième mandat yi su makki delloo ginnaaw mën nañ ko sante une partie bu yaatoo yaatu jigéen jooju léegi nag bu buggaan bëggee wax pour faire mal parce que dafa jàpp ne te loolu tamit mooy interpeller ñi ci coalition bi yépp responsabilité bi Mimi Touré di jékki-jékki def génn def déclaration boo xam ne xam fan lay dóor ak kañ lay dóor ak nan lay yi loolu dafa sonal waa côté bële te mi mu wax dëgg yàlla am ñu bari nañ ñoo xam ne muy ci opposition buñ sañoon am ku mel amuñ ko mais xam nañu ne suñu waxee mu tay leen ci gàmbu lem kon mooy maanaam moo nekk fusible dañ ko jàppe comme benn fusible xam nga Sonko mooy fusible Diomaye mais Mimi Touré dañ koo jàppe fusible Sonko parce que li ñu teg muy rapport bi li mu taxaw wax gis naa genre tappalekat bi ak ñeneen ñu mel taxaw naan Mimi Touré li mu wax du dëgg parce que en effet bi li yëg li la wax li li mu wax mooy conséquence la wax daf sama sama waa ji ci la bokk sama waa ji ci la bokk may ma ma ñëw ah, may ma ma ma ñëw may ma ma ñëw leer na <laughs> démb may ma ma ñëw <laughs> may ma ma ñëw wax naa ko tukkara wax na ko waaw waaw eh, li ma wax exactement ah, li effet bi wax laa la wax man li Mimi wax li Mimi wax laa lay wax. non da nga ne da nga. Mimi dafa utal lay wax ji déedéet ku doon lay non dafa utal lay mais lay wi dafa jël. waaw cuun nag utalu ko lay non non déedéet nooy dafa taxaw daal dafa taxaw daal ne Mimi Touré li mu ko wax nañuy wax dëgg nanga nag waaw non may ma tuuti ma am kàddu nag quand même ma am kàddu wax dëgg yàlla ah. yow yaa am kàddu mais yaa loolu la wax Mimi la Mimi la Mimi la joxañ baaraam may ma tuuti waaw waaw li mu wax loolu amul dafa wax may ma déedéet bu ma la interpellé da ngay bàyyi ba pare am kàddu ma may de dang ma may de. saa wala xamul saa wala en silence. da doon nga la nga ma ne may ma tuuti. non non du ñëw de. kon da ngay terminer kon da ngay terminer waaw damay terminer waaye fii dinaa ko terminer dama ne ci ci an parce que Mimi Touré bu lay évi euh, évoquer conséquence directe banaan la. Mhm. problème mu Covid yi ba léegi mu ngi tudd mu ngi topp àdduna bi. Mhm. li mu wax dafa vaste. Mhm. xam nga da ngeen a jël affaire bi xam nga tey bu FMI ñëwee euh, ci premier trimestre bi wax ne Sénégal li muy visé mooy huit point trois mënu faa egg parce que dafa am ay ay mesures euh, nu mu tuddati yu gouvernement bu njëkk bi Macky Sall def yoo xam ne moo leen fay tee egg. lu mu def diversifié wul ak côté technique lay wax quoi ci comme ni ñu euh, ñi ñuy lebee suñ ko deful ci farata ak yu demee noonu mu ne waaye da ngeen mën a kon yegg 7 point 1 mu ñëwaat ne 7 point un yooyu ñëwaat mooy bii ne du ngeen fa mën a yegg léegi 6 point 0 lay nekk. xam nga tey man ngaa nekk ku taux de croissance beneen maa ngi dégg benn économiste mu koy wax xam nga chiffres yi ñuy gonflé lañ war a bàyyi mi ngi mel ni tey yaw nga nekk Sénégal 7000 mili nga ne 7000 milliards te fekk mënoo am sax. lu ëpp 5000 milliards bay ma tuuti voilà 5000 milliards loolu da nga ko gonflé même ba ci croissance bi ñu njëkkoon wax lan la Macky Sall ñoom lan la njëkkoon wax croissance à deux chiffres jàpp ne day egg loolu noonu ay tappale la léegi Mimi Touré bu la waxee dafa lay wax ne la loola conséquence directe yorin wu bon parce que yow boo yoree ñëw def lu mel ni terre def ci presque cent milliards ba pare xam ne du daw du def bénéfice nga koy layal ne maanaam wutuñ ko pour bénéfice mais dañ ko lu wut pour rapidité pour pour pour gars yi mën a teel a xëy def ci alors que mënoon nga teg loo xam ne daf lay jural bénéfice léegi loolu lu mu lay jariñ da ngay daw di perte maanaam da ngay root root pour paan loolu dafa mën a ànd ak eh, eh, économie bu dox conséquences yooyu la la Mimi Touré wax ne la moo ñu topp ci ancien régime bi la nga taxaw ne waxul dëgg. Euh, kii xam nga saa kii euh, man. défendre layaam layaam rek nga fi nekk baal sa tappale. man défendre ma Mimi Touré euh, kan moo défendre Mimi Touré ak di ko contre. am li ma wax. Eh, yow moom yaa ngi défendre Mimi. ma rappel FMI laa la laa lay wax rappel FMI. lay wax yaa ngi dégg. moom moo fi wax moom moo bind ñëw fi juin 26 juin mu bind wax mm-hmm. autorité sénégalaise yi Abdourahmane Sarr mm-hmm. moom li lay wax ni ko weddi fekkee na ko premier ministre xam na ko président xam na ko def mi waaw président après dañ ko rendre compte seen perspective économique yi mm-hmm. danoo améliorer loolu baax na